internet yu sans limite TV ñu ngi leen di eh, nuy bu baax am mbégte ànd ak yéen di leen jaajëfal itam ci ànd bi saa su ne li waral bile jotaay nag xam ngeen ne kii di maxu Diagne ñi gën koo xam ci Passepartout nekkoon foofee ca groupe Futur Média rawatina ca rajo Futur Média di RFM doon fa def benn émission bu tudd eh, xalaas moom nag moo fi bàyyeekoo léegi dañuy eh, jokkoo ak ñenn ci ñi nga xam ne. Euh, jege nañu ko lool bu ko defee itam ñu daal di ñu defal euh, ay témoignage ci ki nga xam ne moom mooy Makhtar Diagne ñi gën koo xam ci Maxu euh, alias Passe Partout moom nag moo fi bàyyeekoo sànq ci ngoon gilee ñu ngi ak honorable député Pape Djibril Fall ginnaaw nuyoo bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax. delloo ziar bu baax a baax a baax. mbaa yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant sunu borom bu baax. alhamdulilah nouvelle baa ngi noonu kii di euh, Makhou jaañ nekkoon sa xarit kenn ci yow itam euh, bàyyeekoo fi ban témoignage nga ñu mën a defal ci moom. Euh, <clears throat> di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hmm. li nga xamante ni noonu la ñu ko sunu borom digalee. Hmm. ginnaaw bi ma leen nuyoo yéen ñëpp. muy lu diis loo xamante ni dal na ci képp koo xamante ni mbokkam la. Hmm. képp koo xamante ni xaritam la képp koo xamante ni collègue de travail am la woon mhm. man ak Maxtaar rek contrairement ak ñu lu ñu ñu bëri xalaat mhm. euh, ba may xamanteeg moom étudiant la mhm. euh, nekk université nekk université ba pare dëkk Gueule Tapée boobu man ak moom ñoo bokkoon fu ñuy fréquenté man ak moom à l'époque euh, maa ngi jàng pareeguma sax bay tàmbali métier bi ba yàlla dogalaat ñu retrouver wu man ak moom au groupe Futur Média mm-hmm. donc mu nekk euh, loo xamante ni facilement ça fait plus de dix ans mm-hmm. mu nekk nit koo xamante ni ku baax la ki ma ki ma ki ma coupé léegi téléphone benn kilifa mm-hmm. dana ma dama lay ma ndax dama xam ne musul nangu ku la laal wallaahi waaw donc ku ku quelqu'un qui était fidèle en amitié la woon wallaahi mu jaral ko lu ne nag waaw valeur yu mag yooyu daal gisoon naa ko ci moom mhm. waaw euh, bi ma demee ba euh, di nekkatuma ci métier bi ba dugg politique tamit euh, mu garder professionnalisme am mhm. ci liggéey bi mu doon def mais assumer amitié am sama diggante ak moom mhm. voilà ba nga xamante ni à chaque fois ñu soxlawaan expertise am ci li ñuy def daanaka daan na ñëw def ko ba mu gën a rafet vraiment mu nekk une euh, perte euh, immense. Mhm. waaye nag euh, il y a des signes qui ne trompent pas. te suñ borom dafa wax ne borom xel yi laay waxal. Mhm. bés bii nga xamante ni mooy bésu Ashura bi nga xam ci la ci la wuy ji suñ borom. Mhm. dalal na it suñu xel. dëgëral na it suñu njort. na yàlla jëflante woon nag ak gaa yu baax yooyu nga xamante ni ba bés bi agsee ca la ca la feeñaloon yërmande ci ñoom musal leen ca la leen daan sonal mm-hmm. ñoo ngi ñaan sunu borom coonoom yem ci àdduna allahuma amin ñoo ngi ñaan sunu borom fa mu doon jaarale gaa yooyu na ko fa jaarale allahuma amin waaw loolu du dara ci yàlla yàlla mën na ko mm-hmm. te yërmandeem yaatu na waaw wa rahmati wasiat kullu shay'in mm-hmm. yërmande suñ suñu borom moo gën a yaatu lépp kon ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom mu dugal maxtar Jaañ ci yërmandeem jooju ba pare nag teg loxo ci njabootam wallaay mm, muy cheikham yooyu nga xamante ni moom la ko yàlla wërsëgale mm-hmm. ak soxnaam ñoo ngi ñaan suñu borom mu teg ci loxo amin yaa rabbil ci amoon yàlla defal ko ci lu kawe allahuma amin waaw yàlla ma muy fekk nag moo ñu ëpp yërmande ci moom mm-hmm. ñun ñi ko xamoon mm-hmm. euh, bokk ci ñi xamoon tamit euh, li nga xamante ni moom la ko suñu borom nattoo woon euh, muy tawat mm-hmm. yàlla ma muy fekki mm-hmm. yàlla ko ëpp yërmande ci ñun wallaay yàlla mi muy bàyyeeg njabootam gi fii it mm. yàlla ko ëpp yërmande fuuf ci njabootam ka moom wallaay te loolu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum laa cité foofu. Mhm. kañ ngeen mujjee déggante yéen ñaar. Euh, ci tabaski bi. tabaski bi. waaw ci tabaski bi rek ginnaaw tabaski bi sax yaakaar naa ça doit faire quinze jours biñ mujjee déggante. Mhm. lan ngeen mujjee échangeante. waaw loolu nag euh, sama digganteeg moom la woon. Mhm. waaw waaye daal euh, nit ku baax la woon. waaw ku baax la woon daal nit ku baax la woon. nit ku baax la woon. waaw nit ku baax la woon boo koy résumé daal. Euh, man ak moom jaar nañ ci ay circonstances. wallaay wala yenn saa yi politique bi ni coow am ci. Mm-hmm. mais boo gisee message bu maxtaar rek wala numéro wala nga gis appel am rek. Mm-hmm. mooy yow sa xel dal na. wallaay ku mënoon nitam la. ku mënoon nitam c'est vrai. waaw waaw ku mënoon nitam la xam naa lu bari. Mm-hmm. daan na jàpp mbir tam ma bàyyi loo ko mu bàyyi loolu tamit xam naa ko. wallaahi wallaahi. waaw daan na bëgg a def dara. ma ne ko bu def mu teg ko ci suuf. loolu tamit xam naa ko. wallaahi. waaw ku ma di ku ku ku ma joxoon cër la daal. Mhm. waaw ku ma joxoon cër la ku ma joxoon cër la. wallaay. waaw waaye ndaw yi nga xamante ni daal ña ngay eggalee seen seen ndaw ci aljana. Mm. alburax ñoo ngi ñaan sunu borom maxtaar bokk ci. allahumma amin allahumma amin. waaw ak ak ak ak ak ak ci bisu yërmande bi ndax bés bi àttan na lu ne. la wallaahi. dëgg la wallaahi dëgg la. nañu itam li nga wax sànq li koy dëggal moom mooy euh, euh, nit ñi ñu ngi koy partagé ci ci réseau yi comme si que euh, ñëpp ñàkk ki nga xam ne moom mooy Maxu Jaañ ñi gënoon ko xam ci passe partout. Hmm. Maxtaar bari na ku mu jëflanteel ci suuf. Hmm. Mm-hmm. Euh, ndax lim daan xam da daan bari. waaw mm-hmm. euh, lim daan xam da daan bari lool sax. wallaahi wallaahi c'est vrai. waaw lim daan xam da daan bari lool sax. Mm-hmm. lool lool lool lool. yenn saa yi yenn saa yi daan nañ waxtaan man ak moom waxtaan bu yenn saa yi daan nañ waxtaan waxtaan bu xóot. mu xamal ma loo xamante ni man xalaatuma ko woon sax. wallaahi dëgg la c'est vrai. waaw waaye ku ku ku ku ku ku sàmm la woon. Mm-hmm. waaw looy wax ak nit léegi jàppal sama benn kilifa da demal looy wax ak nit rek jàppal ne ci penc bi nga toog léegi. dëgg la de c'est vrai. xam nga bu ñu tollee foofu te nit foog muy am lu lu tubaab mm-hmm. nit dafa soxlawoo mm-hmm. mais boo demee léegi ba ba ki ñuy tuddee xarit. kooku moo lay jël sàmm la ci mbedd bi. wallaay dëgg la c'est vrai de. léegi nag le léegi nag dem yu dem tamit suñu borom bu dogalee dem di am ci kaw suuf. Mhm. wàcc liggéey di am ci kaw suuf. Mhm. daf cee jublu it waare. waare c'est vrai. waaw daf cee dee dafa war a waare. bu mhm. demee ba dee waareetul rek mooy àdduna tukki na. la c'est vrai. waaw ñu war a fàttali ne bésu maxtaar bi kenn ku ci nekk sa bés. ngi ñëw wallaahi. moo tax sëriñ bay jaxate di wax naan fàtte rek a bon fàtte rek fàtte dee rek mooy tax nit di réew ak a bon mhm. di réew ak a bew bu dul fàtte dee kenn du réew ak a bew na fàtte rek mooy tax nit di réew ak bu dul woon fàtte dee kenn du réew wala di beew. wallaahi dëgg allahuma amin allahuma amin amin amin allahuma amin allahuma amin amin allahuma amin amin amin ya rabbil alamin wallahi jërëjëf jërëjëf la koy jaalaat bu baax a baax honorable jërëjëf jërëjëf euh, honorable député euh, euh, Pape Djibril Fall moom nag la ñu doon jokkoog ci téléphone bile. ngir rek euh, daal di ko euh, jël témoignage am ci ki nga xam ne moom moo dem tey di Maxu jaañ ñu gënoon ko xam ci Passepartout nekkoon foofee nga xam ne moom mooy ca groupe Futur Média rawatina RFM doon foo def benn émission moom ak euh, Mouhamadou Mohamed Ndiaye Abano Stress émission bi nag mi ngi tuddoon xalaas ñu ngi koy jaal mbooleem ñi nga xam ne ay auditeurs yu rajo Futur Média la ñu leen koy jaal bu baax gis nañu ñi nga xam ne itam bind nañu ay post ngir rek itam ànd nekk ak ñun ci euh, euh, bi la naxar duñ sax tuddee naxar waaye ndogalu yàlla suñu borom la ñu ngi koy jaal bu baax euh, Boussa Ndiaye ñaa Bousso ñu ngi la koy jaal bu baax gis na gis nañ moom itam mu daal di bind ci page Facebook am ngir rek itam jaale ko ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi lee Kumba Diop Cissé ñu ngi la koy jaal di ko jaal itam keneen koo xam ni xaritam la woon di Modou Silla ñu ngi la koy jaal bu baax a baax di ko jaal itam ki nga xam ne ñoom ñaar ñoo dëkkoon fa fecc mari journaliste di El Hadji Ndiaye ñu ngi ko koy jaal bu euh, baax Ahmadou Bamba Fall moom itam euh, ñu ngi la koy jaal bu baax nee na Maxu tu nous laisses un grand vide si général jovial et servial un bon ami tu euh, manqueras énormément qu'Allah t'accueille dans paradis loolu nag Ahmadou moom moo ko daal di bind foofee nga xam ne moom moo ca dëkkee sargal Youssou Ndour ku ko xamoon xamoon itam euh, ku euh, bëggoon Youssou ma jigéen Ndour la woon ñu la ko jaal bu baax Ahmadou Bamba Fall di ko jaal itam ki nga xam ne moom mooy euh, Penda Diop ñu ngi la koy jaal di ko jaal itam ki nga xam ne moom mooy Awa Cissé ñaan Dacosta ñoom ñëpp même ba ci Amina Mahdi Massou Cissé ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaal bu baax Jaseydi depuis que euh, France yi itam ñu ngi lay jaal bu baax ki nga xam ne moom mooy euh, euh, Maxu Diagne ñi gën ko xam ci Passepartout mi nga xam ne moo fi bàyyeekoo léegi Babacar Diaspora 221 yu itam ñu ngi la koy jaal bu baax a baax a baax di ko di ñaan suñu borom nangu bépp jaal boo xam ne itam yéen a ngi koy def ci ki nga xam ne moom moo dem abano no gis nañ moom itam mu daal di bind ci paasam ñëpp xam ne ne woon na kii nga xam ne moom mooy Maxu jaañ euh, xaritu Abba woon nee na Maxtar Diagne di Passepartout est parti pour toujours yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko al janna kon nag mi ngi noonu Maxu Diagne moo fi bàyyeekoo tey. Euh, euh, altine wala sax plutôt euh, àllarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru euh, juin bi juillet plutôt ci atum deux mille vingt quatre ñu ngi koy jàll mbooleem ñi nga xam ne itam ñoom la fekk ba euh, ñoom la bokkal dëkk foofee ca Caajaay waa Thiès ñu ngi leen koy jaal di ko jaal itam waa Maris ndax fa la di ko jaal itam waa GFM groupe Futurs média la ko dalee ca bopp ba ba ci euh, ka ca gën a suufee ñoom ñëpp ñu ngi leen koy euh, jaal bu baax a baax di ko jaalaat bu baax ñaa soo di ko jaal bu baax Amina Sarr ñëpp di nga xam ne ay auditeurs u rajo Futurs Médias lañ ñu ngi leen koy jaal bu baax a baax mbokk yi ñu ngi leen di jëfal itam ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun ci ci Limites TV Sans Limites TV itam ñu ngi euh, jaal la famille de Makhtar Dia Diagne seen doom bi nga xam ne moo fi bàyyeekoo tey di Makhtar Diagne ñu gën koo xam ci Passepartout nekkoon sama xarit man itam maa ngi koy jàll àdduna bi yëpp mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen doon ànd ak ñun sans limite TV votre site d'information